du nuyu invité yi fi nekk yépp ci turu préfet ñu ngi leen di dalal ci turu maire de la ville docteur Babacar Diop mi nga xam ne amoon na yéene fekke ci daje bi waaye emploi du temps moo xaw a chargé mën nañu faw yéen en tant que jigéen di élu local da ngeen war a ñëw fekke bés bi looloo tax tey jii ñu ñëw fekke ci ko taxawal fi maire de la ville taxawal ses adjointes taxawal ci toutes les conseillères de la ville ñoom ñëpp waroon a ñëw tey ci bés bi ndax c'est la journée de la femme journée de la femme nag buñ koy wax Sénégal waru cee des ginnaaw ndax bien avant euh, Nations Unies di ko décréter en 1977 y avait les braves femmes de Nder yoolu c'était en 1820 kon donc wax dëgg yàlla ñun bu fa le 8 mars ñëwee daf ñu cee fekk te les braves dames fii lañ ko xamee ci Sénégal rawatina nag ñi nga xam ne ñoom les femmes leaders femmes leaders nag bu ñu koy wax il faut ñu mu am réarmement économique il faut mu am ñu réarmer leen sur le plan sociale il faut ñu réarmer leen sur le plan moral loolu moo mën a tax ñu mën a nekk femme leader femme leader itamit lan moo ko mën a gën a suuxat mooy ñu fexe ba nekk miroir d'une société nekk baromètre société bi kon donc loolu li tubaab bi wax la femme et le miroir d'une société son rôle ne consiste pas à exécuter des programmes mais à bâtir une société identique à sa culture kon donc les braves femmes les leaders yi fi toog tout obédience confondue le maire de la ville maître kër Diop mu ngi leen di tàllal loxo xam leen ne moom daf leen di jàppale de fond en comble sur les plans lépp lu ngeen bëgg lépp lu ngeen nisër lépp lu ngeen bëgg a liggéeyee moom il est prêt à vous soutenir xam naa ne nag guddi na wax dëgg yàlla te programme bi yaatu na waaye dañ leen di dalal rek. waaye man sama wax du bari xanaa di gërëm rek ki nga xam ne moom mooy madame Ndoye defe naa madame Ndoye jar naa tàcc ba mu riir a riir bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nag liggéey bi rafet na macha allah boole na jigéen ñi alhamdulilah kon kooku su ne bésu tey bi ñëwee. danañu sargal suñu bopp waaye dinañ ko defal mention très bien di nuyu ni nekk ci table bi yépp tey bésu tey bi comme ni ko madame la maire waxee léegi rek day bés boo xamante ni bés bu am solo la ci ñun muy le 8 mars 8 mars nag man léeg-léeg bu ma koy wax madame de maire dafa am fu mu jógee ndax euh, ñun dey ñi nga xamante ne yàgg nañu di xeex ci 8 mars waaye nag daawul nekkee nii dañu doon nëbbatu di ko def di làqatu di ko def kon tey bu ko ay nit porté di ko xeex ba ñu koy médiatiser ñëpp di tàccu di fecc kon nanu xam jaaraamay jigéen ñi ndax 8 mars nekk na loo xam ne ñun sax suñu xeex jiitu na 8 mars ndax suñu waxee ay jigéenu ndeer ay talaatay ndeer jigéen ñooñu daje woon ne kenn du leen jàpp njaam ba taal taal taal ab néegu ndax ci seen kaw ñu tàkk ba jeex xam nga ne yoo jigéen ay jàmbaar lañu 8 mars nag juddoo ca New York muy foofu it ay jàmbaari jigéen yoo xam ne dañoo nekkoon ci benn usine coton da ca liggéey taxaw ne ñoom de dañoo bëgg ay la yëwan ñu ngi liggéey sonn nañu seen doom yi amuñu fu ñu leen defal amuñu crèche amuñu mater amuñu nuñ koy waxee ci maternelle dañoo bëgg léeg leen ñu bàyyi leen ñu jël seeni doom di ko napp patronat ba te nekkoon seen patron ne yii jigéen bu nu fi yàggee dëkk bi lakk dana non seulement yeewu nañu waaye danañ yee yeneen ñeneen danoo taal usine dafa taal usine ba ci kaw seen kaw ñu tàkk ba jeex waaye yaakaaroon na ne nag yoolu noonu day fay waaye du fay looloo tax tey 8 mars jolli na leneen ak leneen dina jolli leneen ak leneen dina jolli ndax xam nga ne fii ay jigéen yi ndeer ñoo fi toog ndax ka taal loolu yaakaaroon ne fa lay yem kon tey li nu war te préfet wax ko mooy damay ñaan bu 8 mars ñëwatee nanu xayma 8 mars yi weesu xam fi ñu toll waaye xam fa ñuy dëgmal loolu rek moo am wax ndax Cees nag kenn dootu leen wax ci waxu liggéey macha allah mën nañu liggéey mën nañ koo càmbar teg nañ ko ci yoon kon évaluer ko yomb na waaye nag Cees yéen yu ñuy nësër it da ciy daal di baax folklore bi mënu cee ñàkk ndax nag ñu nekk ñu nag jigéen ñooy ànd ak ñun noonu la ñu mel nag lu nu mer mer mer dañuy kaf dañuy ree dañuy way ndax bu ñu yekkee añ bi dañuy bëgg sëriñ bi lekk ko du xam sax li ñu naqari kon loolu dafa ànd ak ñun kon madame la directrice dafa guddi te ngay ñibbi ma lay ñaanal yàlla yoonu jàmm ak salaam kon duma ma guddal damay yem fii rek ndax ñi ci war a wax yëpp ay la yëwan macha allah kon maa ngi leen di gërëm jigéenu Thiès di leen sant jigéenu cees di kontaan bu baax ci ñeen yal na leen yàlla defal jàmm defal ñu ko defal ko mboolem jigéen. ah di kontaan nag ci bés bi. le 8 mars heure bu ñëwee rek bien que xam nañ ne jour yëpp ñun lañ ko déjee bu le 8 mars ñëwee dañuy yëgaat suñu bopp gën a jàjjuwaat gën a continuer ci xeex bi ñuy xeex ak liggéey bi ñuy liggéey dama kontaanloo lool ci euh, euh, madame directrice euh, genre équité parce que suñu plaidoyer ci kii bi ci parrainage bi li ko doon bëgg a yàq moo doon ñu ko bëggul woon di ko xeexee égalité égalité góor ak jigéen ñoo yem alors que ñun demandé wuñu woon à être égal à parce que jigéen boo ne ko da ngaa góor xam nga du ko neex góor boo ne ko da ngaa jigéen du ko neex mais dañu bëggoon rek ñu teg ñu suñu droit à chance égal diplôme égal chance égale ñu bokk di liggéey mooy genre mooy équité bi ñu wax donc loolu dama ci kontaan bu baax di wax euh, li préfet wax rek dafay yoom parce que du ne chaque le 8 mars rek ñu dajewaat waxtaanaat daal di tegaat suñuy bagage euh, euh, forêt ba mu paas ñu demaat dañu war di xaw a gën a gën a évoluer ci suñu liggéey madame Ndoye merci parce que li nga euh, li nga réussir ci Thiès actuellement xam naa sax tombé wala ay gaaf ndax WhatsApp bi def na fi lu bari waaye nii nga def ba jigéen ñi bu ñu xëyee mën a waxtaan mën a changer mën a yokkonte ku nekk sa pensée di ko wax sa morom lu ñu bëgg a jàng def ko ci biir loolu vraiment yaa ko fi def loolu moom vraiment kontaan nañ ci yow ci loolu bu baax a baax ndax bu dul woon loolu am na ñu bari ñoo xam ne ñoo bokk dëkk bi ku nekk yaa ngi liggéey sa ruq mais ni ñu dajaloo bien que femme de développement yi moom ñu ngi daje di liggéey xam naa ko waaye nag yow li ñu ci boole vraiment moo yokk ci xar mi karo kon yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko ñëpp kontaan nañ sa liggéey ah léegi nag ñu yokkaat ci rek leneen nag parce que continuer di transformer céréales di continuer di transformer ay kili daal xam naa ne léegi jigéen ñi ko mootul sax bareetul kon nañu évoluer na jëm ci leneen nañu évoluer jëm ci leneen renforcement de capacité yi mu ngi fi yéen koy def xam nañ ko mais des na des na bu baax a baax a baax a baax a baax donc euh, jot na jigéen ñi euh, euh, tàcc yeeg tàcc fecc yi moom mënuñu te ñàkk dafa bokk ci ñun waaye nag jigéen ñi wàññi nañ ko bu baax heure bu ñu koy def day fekk ñu def l'essentiel ba noppi soog ciy boole loolu. xam naa ne li tax mu yaraax nii li ngeen xëyee liggéey bi ngeen xëyee ci suba yenn fa nekk ca ba deux heures ngeen dem seen kër di sanguwaat moo tax ne ci suuti rëcc dana fi am c'est sûr ndax jigéeni dëkk bi yépp ñu ngi sa plateforme bi madame Ndoye kon merci beaucoup kon maa ngi nuyu ñëpp bañ a guddal ndax suñu toppee wax ji day xaw a niroo kii la te guddi na fi mu nekk nii kon ko teewee nëgën dem mu defar ko mais da ngeen may may tuuti ma taxaw ci madame Ndoye en tant que coordonnatrice comité consultatif de la femme, elle est venue à Thiès. À des moments très difficiles. À des moments où on devait redynamiser. À des moments où on devait ñu war a defaraat lépp mu ñëw xam fi muy teg tànkam ndax bu nit di laajte doo soo laajtee ku am xel bu la tegee ci yoon it boo laajtee seytaane nag yaa réeral sa bopp kon damay sant sunu borom bu wér parce que yàlla dafa dogal ma njëkk koo dalal bi mu egsee première rencontre am fii réseau yàlla dogal ñu toog maag moom nii maa ngi koy wutal place di ko kii bas yaa mu ne ma man maay chef service bu bees yi man ko ah, ma ci xam kon fii ngay toog force et euh, ma jóg sama place jox ko c'est en ce moment qu'on mu nekk nit ku baax nit ku mën a yaatal nit koo xam ni dafay joxe cër ba nga yaakaar ne du chef de service kon c'est l'occasion man itam ma wax leen ko nous aussi on a fêté journée internationale de la femme rurale biñ koy fêté on est allé voir une grande dame muy madame Diagne biñ koy sant di ko gërëm nous les femmes du département gis nga nit am na lu baree bari da lay xool benn yoon nga defal ko ko mu téye ko koor noonu lay def nous les femmes du département dañuy korte bu ñu jàppee dootuñu bàyyi elle nous a accompagnés parce que c'était notre première fois ñu oser organiser lu mel noonu ñeme rek mais elle nous a accompagnés may ñu fit di dépêché ministère bi yëpp moo ñëw accompagner ñu kon madame dañ lay ñaanal yàlla tey jii bis bi nga ñëw muy sargal jigéen dañ ci kii par ma voix toutes les femmes du département de Thiès ñu ngi lay sargal di la wax jaajëf je ne vais pas revenir en arrière ci historique bi attaqué fat nañu ko ba pare waaye dinaa leen fàttali tuuti Thiès fête 8 mars autrement cette fois-ci on l'a fêté aussi autrement parce que ce matin dañoo génne euh, Thiès li ñu mën li jigéen ñi mën génne nañ ko madame Ndoye à travers CRETEF def na ko man waroon naa def prestation mais comme ni ngeen gisee rek yaram bi moo xaw a moo tax defuma ci suba mais defe naa les autres femmes ñu ci bari wane nañu seen savoir faire et c'est important ça fait partie d'une évaluation ça c'est une évaluation parce que dafay wone li nga xam ne jigéen ñi boobu ba tey ñi ngi koy def une autre chose moo di lii évaluation la vous savez pourquoi elle a su boole ñaari entité yu dul woon laale politique et développement politique les femmes politique et les femmes développement daawuñu toog cette fois si les femmes politiques et développement ñoo ko benn ceeb ñu nasandoo ñu benn fer kon tey fer boobu ñu ñu nas ba mu dëgër nañ ko takk ba mu dëgër téye ko ndax benn per du yëngu mais fer boobu ñu ñu defar nasa dafay yëngu suñ ko jëlee def ko à bon échéance ñu koy utiliser ñu xam ne lii kat ñun ñoo ko moom outil boo xam ne la c'est pas pour madame Ndoye encore une fois c'est pour nous les femmes les femmes leaders et quand on parle de kon dañuy wax jigéen ñëpp la ka ca tool ba ka ca wañ ba ka ca marché bay jaay ka ca bureau bay liggéey ñëpp ce des femmes leaders ndax lu tax kenn ku ci nekk saa yoo xëyee njaboot a tax ngay jóg kenn ku ci teg saa yoo xëyee ku njaboot tax ngay jóg société la tax a jóg bu la société taxay jóg état ngay jàppale kon kenn ku ci nekk yaa ngi pousser ce pion boo xam ne yaa ngi koy teg pour le développement booster l'économie de ton pays kon femme yëpp jaa jëf tey jii ñu daje fii Thiès ñu ñu jóge ci département bi ñëw fekk si leen mu nekk lu ñu neex nag ndax lu tax gis nga ñi dul ni nga xam ne dañu war a ànd te ñuy ànd jigéen ñi fu mu toll nii dañu war a jàppalante comme tout à di je l'ai dit on a l'habitude de fêter mars autrement dañ daan génne ay thèmes thème bu tekk am ay groupe yu ko étudier ñu génne bu ñu paree génne plaidoyer suñu paree plaidoyer boobu ñu yónnee ko présidence loolu laay bëgg ñaan madame Ndoye loolu la ñu bëgg mu ñëwaat su dellu si waatee on le prendra beaucoup au sérieux te loolu dañ la koy ñaan di ko dénk te xam ne bu ñu la ko dénkee dina ñëwaat parce que c'est su qu'on veut parce que feete ko nii pour feete certes y a de l'animation mais am na leneen loo xam ni ñun soxla nañ ko mooy sunuy xalaat parce que saa yu ne comme ni ñu comme ni taamati wax ñu nekkatuñu ci céréale bi noonu di defar rek dépassé nañu innovation la ñuy wax nous avons des produits innovants yoo xam ne jigéen ñi dañ koy génne loolu dañ ko war a jottali son excellence le président Macky Sall mu xam lan la jigéen ni Thiès nekkee mu xam lan la gis moo tax lii ñu def tey damay ñaan madame Doy que mu sanctionné kooku rapport jox ko préfet préfet joxoon ñu ko gouverneur mu egg ba son excellence le président Macky liggéey bi nga xam ni yéen a ngi koy amal c'est vrai euh, c'est une date assez symbolique le 8 mars. bien vrai que ñu le lendemain mais ñu koy fêter reconnaître que partout dans le monde occasion la fii à Thiès pour saluer l'immense travail. bi nga xam ni jigéen ñi ñu ngi koy ñu ngi koy abattre ci dëkk bi soo jëlee ci aspect économique bi dañuy seetlu ni femmes yi ñu ngi bu baax ci maraîchage bi ci agriculture bi ci commerce bi ak yeneen secteur d'activité loolu ñu koy yëg bu baax ci développement économique bu département de Thiès mais ci question sociale yi aussi ñuy sentir seen loxo bu baax ci wàllu toppatoo xale yi mën naa ci lim tamit activités yi nga xam ni bàjjanu gox yi ñi ngi koy def fédération yi ak association de femmes yi nga xam ni ñi ngi koy def ci participer ci vraiment développer autonomisation femmes yi donc loolu rek mënoon na tënk jataay bi mu nekk jataay boo xam ni jataayu félicitation la mais aussi di leen sargal mais aussi di leen encourager ngeen continuer ci effort yooyu ngeen di def depuis lors mais man damay wax rek ni datu 8 mars warul yam souvent ci niñ koy faral di defee ci ci ci ci Sénégal mooy dajale jigéen ñi mu nekk moment yoo xam ne dañuy moment des moments festifs ah mu am beaucoup de folklore et tout sax dama bëgg mu doon date yoo xam ne day day day day day marqué un départ vers des des questions essentielles boo jëlee euh, enjeu économique yi dafa laaj jour journée yu mel nii bu amee ñu taxaw waxtaan ci les vrais problèmes de l'heure problèmes yi nga xam ni ñooy tax jigéen ñi niveau bi ñu toll nii ñu mun ko dépasser parce que c'est vrai état du Sénégal mi ngi accompagné depuis lors def kéntu lay kàttanam d' ailleurs loolu wundu peut-être loi bu mel ni loi parité mais tey laaj na ñu toogaat waxtaan posé wu ay question si même justification loi bu mel noonu ndax loi boobu ça son sens jusqu'à présent parce que boo jàngatee ni société bi di doxee sur le plan numérique dañuy seetlu ni les femmes sont largement supérieures aux hommes yéen a ëpp góor ñi et cela constitue une vraie force te force boobu warul toog di nelaw warul leen nangu ñu leen di tënk ci ay loi parité parce que euh, élus yi mën nañ ma seede loi parité mooy góor ak jigéen yam tolloowaay yam ay place ci institution yi ci instance de décision yi alors su fekkee yéen yéen a ëpp góor ñi mais ñu leen di tënk ngeen war a tolloo ak góor ñi ci institution yi loolu handicap la pour yéen c'est un réel handicap pour yéen moo tax war nañu toog ñu repenser waat ñu xalaataat ci ci ci loolu déplacé enjeu bi déplacer enjeu bi mooy lan ñu gën a focaliser wu ci l'éducation des femmes ci la formation des femmes yaakaar naa ni bu fekkee insister nañ ci côté boobu te ñu teggi woon loi parité rek aujourd'hui institution yi ci Sénégal instance de décision yi jigéen ñi ñoo fay ëpp foofu góor ñi te euh, actuellement statistiques yi wane nañ ko mais aussi concrètement pratiquement sur le terrain wane na ko foo dem tey jii ci secteur d' activité yi d' abord déjà ci ci école yi mais aussi ci secteur d' activité yi gis nañu des femmes braves engagées mais aussi mat vraiment ci place yi nga xam ni moom la ñu nekk entre autres questions donc euh, dañ leen di sargal encore une fois di leen féliciter di wax rek ni journée bi doyul pour vraiment sargal leen mooy aussi ma génne xam naa ne doyul pour sargal leen ndax yaakaar naa du benn jour rek la ñu war a sargal jigéen yéenay joxe la bi mais aussi yéenay neexal dund bi loolu nañ ko wax tëddee en Mayoro waaw donc dañ leen di féliciter encore une fois en tout cas le département le préfet mi ngi marqué engagement am total et entier à vos côtés pour accompagner leen comme ni mu ko yàgg di defee mais aussi sur le terrain sur le plan opérationnel am na aussi ces services comme le développement communautaire ngeen xam ko bu baax comme l'appui au développement local mais aussi toutes les ONG qui qui interviennent à Thiès sur les questions euh, du leadership féminin mais aussi de l'autonomisation des des femmes encore une fois maa ngi leen di féliciter si initiative bi organisation bi et aussi di leen souhaiter de passer une très belle fête merci beaucoup